السلام عليكم سعيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاشكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سررا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم عليه الله في آله وصحبه وكل من طلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخزى وأساء قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما معطي السول وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما سلاما من جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإنما فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز فإن من أدبر على الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهو وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم ittaq allaha xaytu kunt man kaana yuminu billahi walyowmi alaxiri falyaqul xayran aw liyasmut qad axbarani rasulullahi sal allahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa baaraka ana man taaba min ummati qabla mawtih fa innahu yashfacu fihi cinda mumiiti maytih wa anna man lam yatub minhum tawbatan nasuha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 وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد فيه للمنتقى عليه سلاماه بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعق بفضل من جاد بفتق الرتق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يظفر بكل ما من الخير يصطفيه فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم غيره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاه ذي العصبات المردية صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأرضية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yu baax yi nuyu bokki taalibe yi di nuyu bokki julli yëpp di ziar ñëpp sant ñëpp su ci tolluwaay bi jamono ji korona lu ko waaye wax tooñ ko ndax suñu boobu mooy def mooy dindi korona suñu boobu danoo sàkk sàkk ko muy wéy ci ndigal luñ ko digal mu def ko fu ñu ko yemloo mu yem fa xanaa nun kay nu war a seet suñu bopp nun ñi nga xam ne doo nekk ci diggante sikki sàkka lu jiitu weddi aku déng-déng nun doomu aadama nun ñëpp li ci ëpp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 sëriñ bi te fas yéene rek nekk rek ci li nu nekk loo muy lim nekkoon rekk ak lum nu jafe-jafe te doyloo ko sëkk ndax fàggul nañu lépp lu mu nu war a fàggul tey ëllëg fàggul ko lu mu war a ñaan boroomam tey ëllëg ñaan na ko te jubóo muy pàgg bi téeb bi jubóo na ci boroomam bu dee ñaan bi boroom nangul na ko ko kon kay dara warul waxtu wu ne ñuy gën a wéetal yàlla waxtu wu ne lu gën a sax ci jaamu yàlla sunu kem kàttan loolu mooy sunu wartif ah, àdduna moom mel na melo bi rek laa mos a mos a jàgg kon tolluwaay bi mel na ne am nay fitna am nay ay tiis am nay ay jaaxle waaye yooyu yëpp du ci dara bu nu nekkee ci leen war a nekk du nu yëg fitna fitna jenn ju nu yaa ju nu gàttandu du nu jaaxle ci dara ci met mbir kon li nu li nu jikk loolu rekk nu jikk wéetal yàlla sax dàkk ci jaamu ko nekkal sëriñ bi ci bëgg doyloo ko ci lépp mooy sunu wartiif di li nga xam ne moo nuy noppal mooy dalal sunu xel moo nuy dimbali ci lépp jamono ji waxtu ne ñu bari ñu ngi wax ay jafe-jafe waaye yooyu yëpp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 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون loolu rek doy na sëñ bi moom looloo ko fi andi woon moom la fi nekkee woon boole ci nag di gindi jaam ñi ci seen boroom di wommat jëmale ci seen borom sëñ bi loolu rek la fi nekkee woon looloo ko fi andi ci loolu rek la nekkoon. kon nag ñun sant rek lañ war a def sun borom mi nu boole sëriñ bi sant sëriñ bi nga xam ne doon sëkk biir bi tey ak ëllëg sax ca dàkk nag euh, ñoo ngi euh, jéggalu ñëpp ñi mbaloo xaq ñépp di ñaan ñu balonte xaq ñëpp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 loolu góorgóorlu bu baax a baax loolu rek mooy kàddu yi nga xam ne eh, sama bopp mooy moom laa si jiital ñu jël samay bokk sama bokki sama sama bokki jullit loolu rek mooy li nga xam ne ah, dara jigunu ci junug àdduna gi waxuma laa junug àllaaxira gi dara jigunu ci loolu taxaw tem ci li ñu fi andi muy jaamu yàlla te sax ja dàkk gannaaw ba ñu ko wéetalee nag ci lépp xam ne mooy def mooy dindi noo ngi sant ñëpp eh, di ñaan sunu borom ci mbaaxu sëriñ bi eh, tolluwaay bii nu toll eh, mel ne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 noo ngi sant bu baax a baax a baax kàddu yi da mënta ñàkk waaye eh, sunu xel dal na xam nañ ne jaamu yàlla moo moo moo yombul waaye mel na ne kenn ku ne ci ñun mu ngi ciy def kem kàttanam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 ñëpp tàllal ganum njëriñ gaa ngi tàggoo yal na fab sunu lor yóbbaale faw te dem del seeti fekk nu fi nun ñépp yal na nu teeweeti ñëwam bu rafet déwén te fekk nu gën fee tedd ëpple fi buy del si yal na nu fekk ak xol bu sedd ku yiw te fekk ay njariñ ak mbooloo mu jub bari fi buy del si yal na nu fekk ak may gusu xali may te fekk nuy bari taw ganum njariñ gaa ngi tàggoo yal na fab sunu lor yóbbaale faw te dem del seeti fekk nu fi nun ñépp yal na nu teeweeti ñëwam bu rafet déwén te fekk nu gën fee tedd ëpple fi buy del si yal na nu fekk ak xol bu sedd ku yiw te fekk ay njariñ ak mbooloo mu jub bari fi buy del si yal na nu fekk ak may gusu xali may te fekk nuy bari taw féex ak